le moom nag mu daal di xëy daal di àddu ci xatam mu njëkk mu mel ni coow lu doxoon diggante Sénégal ak européens yi ba tey mi ngi woy ndax daa mel ni amut benn tànd boo xamante ne si nemmeeku nañ ko mu mel ni Sénégal ginnaaw frontière yi ñu waxoon dina ko tijji fukki fan ak juróom ci weeru juillet sax dafa mel ni dese naa anto ndax wala wala boog loolee sax même bu anto am na ci yenn réew yoo xamante ne si niki démb ci benn publication buñ gis daal di nañuy xamle ne réewu Europe bi moom ba tey amul benn lu leer loo xamante ne si daal di nañ ko ci nemmeeku mu mel ni benn réciprocité rek lañ daal di gis ci mbir moomu ni ginnaaw dañ ne Europe dañ leen di tëjal seen i buntu ñoom itamit dañ leen di daal di tëjal seen i ba keroog ñu ci am lu leer mu mel ni yéenekaay daal di addoo euh, ci xëtam tamit bi yoon source a lay daal di doon moom nag mu daal di desandi euh, ci procès implantation bi nga xamante ni si nguur gi waroon na ko fee ci jes mu mel ni procès boobu yéenekaay bi lam ci xamal rek moom moo di euh, fas yéene naa antu ci diir bu gàtt ndax rek daal dina koy financer lépp loo xamante ne si war na caa jëm bi noonee rek la ci daal di àddoo waaye leneen loo xamante ne si tamit gis nañ ko ci yéenekaay yi ci xëtam mu njëkk mu daal di ci àddu rek daal di ciy jëmale ak fi nga xamante ne si foofu la feebar bi toll jamono ji ci Sénégal mu mel ni yéenekaay bi dafa xamle ne feebar bi moom awagul tànki génn ci réew mi benn yoon ni ki démb rek téeméer ak fukk ak ñaar yi def ci ay test daal dinañu nemmeekuwaat ne am na ñetti nit ñoo xamante ne si jot nañoo ñàkk seen bakkan ci doomu jàngoro bi loolee sax daal nay tax lim bi daal di egg fi mu toll nii luy tolloog téeméer ak juróom fukk juróom benn yoo xamante ne si ñàkk seen bakkan ci réewum Sénégal mu mel ni yéen kaay tamit di fa xamle ba tey tamit ni am na luy tolloog fanweer ak juróom-ñett yoo xamante ne si ay cas grave lañ jamono ji maanaam ñi ngi ci réanimation yi mu mel ni noonee la ci yéen kaay bi rek di xamle ak fi nga xamante ne si foofee la mbas mi rek daal di toll ci biir réew mi ñu ànd ak yéen tamit ci beneen yéen kaay lay doon bii yoon nag tribune la daal di doon moom i tamit mu daal di desandi ci mbir moomu euh, di xamle ni ginnaaw coow li nga xamante ne si nemmeeku nañ ko ci diggante Sénégal ak Europe mu mel ni tamit leneen coow daal diaspora arabe moom i tamit daal dinay tëjal ay buntam Sénégal mu mel ni ñuy wàcc ci am réewam rek Sénégal fas yéene ci bokk leneen li nga xamante ne si daal dinañ koy gis ci xët bu njëkk yéene kaay it muy addu moom moo di wàllum suuf si nga xamante ne si nemmeeku nañ ci mu mel ni la daal di am ci fi nga xamante ni moom moo di as bernal euh, kii di Alioune Ndoye moom daal dinay addu jëmale ca lool mu mel ni meer ba nag moom lam daal di xamle ca mbir moomu moom moo di coow loolu amut lenn loo xamante ne si rek dal dina ko ca yëkk waaye sax ma ngay sàkku rek ñu daal di indi ay leeral daar daar ca nam moomu mu mel ni yéenekaay bi di xam ne ni mbir mi daa nekk loo xamante ne si askanu Sénégal dañ ciy doog a jot rek waaye bañ ko xaatimee yàgg na lool mu mel ni noonee rek la ko daal di xamlee ci xëtam bu njëkk ñu ànd ak yéen ba tey tamit le quotidien moom mu daal di desandi ba tey tamit ci mbir moomu mu mel ni l'espace bi nga xamante ne si daal di nañ koy nemmeeku ci état bu Sénégal ak coow yi nga xamante ne si moo am ci sangeen bi loolee rek la yéenekaay bi di xamle ni donte ki nga xamante ne si mooy mégason moom daal dinay indi ay leeral ak tamit di dalal askanu xelu Sénégal mu mel ni coow loole ba tey nekkut loo xamante ne si lu dal la ci xelu Sénégal yi ndax ñoom ba tey ñu ngi wëy di tëjal Sénégal seen i buntu mu mel ni loole sax tam moo tax Sénégal ñoom itamit daal di jël ab dogal ñoom it daal di leen di tëjal seen i buntu mu mel ni ak waxtaan ak déggoo ba tey tamit kenn nemmeeku ko lu jëm ca mbir moomu ñu daal di gis tamit ci yéenekaay bi muy xamle ne jot na sëkk ñu daal di xam ne lépp loo xamante ne si ñoom def nañ leen ko rek ne leen ko état bu Sénégal daal di def ndax mbir mi daa toll foo xamante ne si eh, kenn ku nekk day xool rek la nga xamante si moom moo ci nekk sa intérêt tere ñu daal di ànd ak yéen bi yoon vox pop lay daal di doon mu daal desandi ci mbir bi yoon ci lim addu jëmale nag muy wàllum télécommunication ak xaalis bi nga xamante ni daal dina ko yor ci réewum Sénégal mu daal di xam ne ne jamono ji daanaka bari na ci ay milliards yoo xamante ne si ci wàllum télécommunication la ko Sénégal di amee ndax luy tolloog 762 virgule 89 milliards rek daal dinañuy nemmeeku ne ci secteur boobu la ko Sénégal di jëlee loolee sax daal dinay tax mu daal di koy séddale ci lu tolloog 467 milliards yoo xamante la ko état bu Sénégal di jëlee waaye tamit daal di am lu tolloog 294 milliards yoo xamante ne si ci ay fixe lañ ko jëlee mu mel ni yéenikaay bi daal di gis ni euh, kon daal dinay jot nag ñu daal di dooleel secteur boobu ndax lam yor ci ay milliards nekk na loo xamante ne si lu bari ci askanu Sénégal lay daal di doon leneen lim ci àddu tamit jëmale ko moom moo di euh, coowal test yi ñemee ko fan yi teñ état bu Sénégal da koo teg ci képp koo xamante ne si day dugg ci réew mi rek da nga fay luy tolloog 40 000 jàpp 55 000 mu mel ni yéenikaay bi daal dina ci indi fi nga xamante xamante ni si moom mooy Horizon sans frontières ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy diaspora mu mel ni ñoom nag lañ daal di gisee ci mbir moomu mooy racket rek lañ ko daal di jàppee maanaam mbir moomu amul lenn loo xamante si lu ci jaadu mu mel ni noonee rek lañ ko naqarloo ci xëtu yéenekaay bi di Vox Pop ñu ànd ak yéen ba ci beneen mbir bi yoon nag site quotidien lañ ciy daal di ànd mu daal di desandi tamit ci déclaration patrimoine bi nga xamante ni état bu Sénégal mi koy sàkku ci ay ministre mu mel ne yéenekaay bi lam gis rek a noonee la daal di gis sax ba tax président daal di bëgg a sàkku ci ñoom kenn ku nekk la nga yor rek nga daal di koy leeral euh, ki nga xamante moom moo di Sadikh Niang moom nag lam daal di gis ci mbir moomu nee na président ci boppam moom moo war a njëkk a def déclaration laata muy sàkku ci ay ministre am ñuy def déclaration mu mel ne daal di nay jàpp ne sax ne mbir mi ay caaxaan la ak di kokkali waa Sénégal ci boppam loolee rek lañ ci daal di jublu keneen ki addu daal di jëmale ci mbir moomu moom moo di Alioune Tine moom nag lam daal di gis ne la état bu Sénégal fi mu toll nii président Macky Sall laata muy digle sangu moom dafa war a set ba pare ndax moom moo war a njëkk daal di def déclaration laata muy sàkku ci ay ministre am ñoom it ñuy def déclaration mu mel ni nee na sax li nekkut lu jaadu moom moo di taxawal ab gouvernement luy tolloog ci fukki ak juróom ba pare di sàkku say gouverne say ministre ñuy dem di def déclaration jàpp ne loolee moo njëkk a nekk loo xamante ne si jaaduwul ci yoon ñu ànd ak yéen ba tey beneen yoon ci direct news lay daal di doon mu ñëw ci Macky moom nag lam daal di gis rek moom moo di gouvernement buñ daal di taxawal luy tolloog fukki weer ak juróom ba pare doog sàkku ay déclaration di am ci mbir mi mu mel ni yéenekaay bi daal di indi nag di def ay leeral ci ñoo xamante ne si bañ nekkee ci état bi ci diiru fukki weer ak juróom ñoom liggéeyu ñu fi dara mu mel ni daal dina cay jot sax daal di lim lenn ci ay ministre ñoo xamante ne si jàpp nañ ni jamono ji amaluñu njëriñ benn yoon li nga xamante ni moom moo di askanu Sénégal ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr daal dinañuy gisaat keneen koo xamante ni si ca mbir a lay bokk mooy Moussa Baldé Samba Ndiobène Ka Abdou Abdou Karim Fafana ak Abdou Karim Sall mu mel ni tamit daal dinay gisaat ni Mansour Faye ca loolee la daal di bokk ak Amadou Hott ak Serigne Mbaye Thiam mu mel ni jàpp na ni ministre yooyu mu daal di jotal lim rek ci xëtam bu njëkk amut lenn loo xamante ne si def nañ ko fi ci diiru bi ñu leen falee ba léegi waaye daal dinay ministre yoo xamante ne si daal dina jàpp na ni bari na loo xamante ne si liggéeyal nañ ko askanu Sénégal ku ci mel ni Boun Abdallah jonn euh, docteur Kanté Ali ki nga xamante ne si moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ak Ali Nguy Ndiaye waaye daal ni ca mbir ma la bokk mooy Amadou Ba ak Mohamed yi tamit noonee la daal di gis ne ak ki nga ni moo di Moustapha mu mel ni ñooñee rek daal dinañu jàpp ni ñoom wuute na ak ñi mu njëkk a lim ca kaw ndax ñoom lu mu bon bon rek am na loo xamante ne si daal dinañ koy defal état bu Sénégal waaye ba wut jigéen ñi nga xamante ni si ñoom it ñu ngi ci gouvernement bi mu mel ni ñooñee dañ dafa mel ni dafa jàpp ni amut lenn loo xamante ne si jamono ji maanaam defaruñu yàquñu ñoom dafa mel ni dañoo toog mel ni kuy seetaan mu mel ni noonee rek la ko daal di addoo ci xëtam mu njëkk di ko xamle bii yoon nag ñu ànd ak yéen ci beneen yéenekaay mu nekk laas moom nag mu daal di xamle dikkaat ci ki nga xamante ne si moom moo di coow liñ fi nemmeeku ci diggante Malick Sall ak Ayaboun Malick Diop mu mel ni loolee rek la ca daal di xamle mu mel ni yéenekaay yi nee na coow loolu ba tey ma ngay woy di ànd ki nga xamante ne si mooy Aya Sall moom mu ngi sàkku rek ki nga xamante ne si moom moo di eh, Diop rek mu daal di def ay leeral jëmale ci coow loolu lu nga xamante ne si doxoon nañ ci seen diggante ñoom ñaar ñu ànd ak yéen ci beneen yéenekaay bi yoon nag l'observateur lay di doon moom it mu daal di desandi ci xëtam bu njëkk di xam ne ne président Macky Sall jamono ji day sàkku ci ay ministre am ñu daal di def déclaration patrimoine mu mel ni loolee rek ñeent fukki fan ak juróom rek la leen daal di may kenn ku nekk daal di cay leeral ca mbir mu jëm ca loolu ca wàllum of nag mu mel ni yéenekaay bi di xam ne ni njëkkoon na leen ko fee sant ci ab yoon waaye dafa mel ni bari woon na ca ñoo xamante ne si jotu wunoo egg ca of nag mu mel ni bii yoon nag daal nay sàkku kenn ku ku nekk ci ñoom rek mu daal di dem daal di defi ji déclaration leneen li yéenekaay bi daal xamle ci biir xatam mu njëkk moom moo di coronavirus bi ak fi mu toll mu mel ni daal di nay gisaat ne tabaski gi ñu jub si foo moytuwul dina nekkaat beneen mi ndax li nga xamante ni ñoom ñoo di ministre de la santé ñoom jëluñu benn prévention boo xamante ni si jàpp nañ ni danañ mën a dajale wala arrêté doomu jàngoro bi jëm ci ñi nga xamante ni moom la ñuy jëflante ci nit ñi mu mel ni noonee rek la ko daal mu njëkk daal dina jot sëkk nag ñu ñu daal di bàyyi xel ci mbir moom ndax soo moytuwul su jàllee rek dina ci bari ñoo xamante ne si dinañ amewaat doomu jàngor bi baa sax ñu daal di ko fay jële dem na sax bay xam ne ni képp koo xamante ne si jënd nga xar sax boo eggee sa kër bay boo nga teel a xool noo ko sangee laata mu yóbbaale benn doomu jàngoro ki sa biir kër leneen li nga xamante ni gis nañ ko ci xatu yéene kaay l'observateur moom itamit mu daal di décédé ci coowal suuf sa nemmeeku ci classe bu mbaaw mu mel ni dane coowal suuf soosee ba tey ma ngay wëy di des ni ginnaaw 15 yi nga xamante ne si joxe nañ ko mu mel ni yéene bi ne ni jamono ji Sénégal dafa mel ni caxat caxatee suuf su metti ci lañ nekk ndax suuf suñ tudd bañ ne noonu la rek ñu daal di jàll ci leneen suuful noonee la ko xamlee ci xëtam mu njëkk ñu ànd ak yéen ba tey tamit xam naa critique lay daal di doon mu mel ni soxna Fatou foofu rek lañ koy ndar keppee moom nag daal dina indiwaat leneen coow loo xamante ne si nemmeeku woon nañ ko ci kéwal yi nga xamante ni ne woon nañ Abdou Karim sàll moom moo ko dugal ci réew mi bi yoon nag lam xamle moom moo di nekkul ni Abdou Karim Sall rek moom moo fa jëlee ay kéwal ndax ki nga xamante ni moom moo di euh, Amar wala Aly Ndiaye moom it jël na fa ñaari kéwal yoo xamante ne si ci même jour sax lañ ko jëlee waaye am na ñaari réserve privé yoo xamante ne si tamit ñoom it jël na fa kenn ku nekk ñaari kéwal mu mel ni ginnaaw juróom-benn kéwal yi Abdou Karim Sall jël amaat na yeneen juróom-benn kéwal yoo xamante ne si rek daal dina fay jógee mu mel ni yéenekaay bi noonu lañ ko xam ne ci seen xët bu njëkk soxna Fatou day mel ni loolu la gars yi daal di indi tey jii yamoo fukki fan ak juróom-benn